cachot à ak condition est comment dirais-je hmm. déjà garde à vue garde à vue retour de parquet sang tout ça mais tout ça pour humilier l'homme, Adam alors que la justice n'est pas là pour humilier la justice n'est pas là pour déshumaniser mais la justice est là pour rendre même humain la personne. Oui bien, les réseaux sociaux qu'est-ce qui s'est passé tant Macky Sall am na des sagas, di Pastef lañ mais ils étaient à l'extérieur du pays. Hmm. ba y amuñu un mouvement bo you mën nga ne mouvement des femmes mouvement des jeunes mo mouvement des enseignants wax. Mm. mais ñi da nga ministre la. député la la déjà premier problème mon la justice une indignation sélective par exemple notre président de la république lan la wax clochardisation mais cela ne veut pas dire traiter la personne de clochard c'est-à-dire que yow yaa ngi dem ba bi mm, ñu naan bul dof doful sa bopp bi. Mm-hmm. nekkal nit maanaam bul fowee sa xel bul fowee sa xel cela ne veut pas dire que da ngay fowee sa xel mm-hmm. loolu lañ ko jàpp tëj ko non seulement ñu ci tëj ko ñu yóbbu ko instru ñu bàyyi 6 mois yi defal ko yeneen charge mais léegi nag Macky Sall jóge na fi alhamdulilah rabil alamin ay nit ñu tekkiwul dara ñu mel ni Bah du ci xam-xam du ci juddu su ma nee du ci juddu c'est pourquoi parce que nit su nekkee ne góor ak jigéen jur nañ la parce que jur ñëpp ko mën war nga ngay def dara sa bàyyi woo la ne la bàyyil nga bàyyi sa ndey woo la ne la bàyyil nga bàyyi soo demee ba sa ndey mënu la wax ne bàyyil sa baay mënu la wax ne bàyyil mooy yow tekki woo dara su nekkee sa ndey gëmm na ay bëtam waxu bàyyil sa baay gëmm na bëtam waxu la dara mooy ñooñu sonnal nañ société bi nañ société bi pour indil ñu koo xamante ne nii waya waya la quoi duma sax am le mot bu nga xamanteni ni euh, dans une émission. Oh, alors quel que soit Alpha wuñu kenn ko xamanteni qui mi ngi dal loxo euh, ñi ñaan peut-être mu mais ci condition yu leer yo xamanteni dire erreur bi mu que mën veux personnellement man que wax nak man la veux man que ñaanuma xam tax ñaanuma parce que fi dafa am dañ a jox cieur tay so jëlé Khalifa muy imam muy oustaz soo ko gisee nga war a gis ci moom loo xamante ne lay delloo ci yàlla soo ko gisee rek war a gaaw muuru mu jël ko di ko waxal waxu góor jigéen nga ne nañ ko baal gis nga yàlla moo ñu ëpp yërmande mais même yàlla mu ñu ëpp yërmande sax dafa teg sanction parce que sanction mooy tax société yaru soo jëlee le président le premier président Ousmane Sonko quand je dis président Ousmane Sonko c'est parti Pastef nga jël ko teg góor jigéen mm. quand nga jël nit koo xam ne dafa am jëkkër nga jël ko di wax ci moom lu bon après nga ne bu ko kenn yéene kaso kon lu tax ñuy tabax kaso mm. am na ñoo xam ne par erreur lañ demee kaso ñu ngi leen di ñaanal yàlla génne leen fi mais am na ñoo xam ne dañu dem kaso parce dañu toggoon di yàq deru doomu aadama yi di saaga man est xam nga ne métti na ma bu muy saaga Ousmane Sonko lu nekk wax na ko est ce que xam nga ne saaga na Ndiaye Ousmane Sonko mu métti ma ñaata année ma toog di ko muñ ne bés bu fi Macky Sall jógee waa kër ñàkk jàmm justice dafal ma liggéey justice dafal ma liggéey ma toog di leen ñaanal ñu génn man je prends toutes mes responsabilités baa jaxate waxuma keneen mako ko yene tay mako ko yene euleuk ëllëg na justice def liggéeyam ah, et ça c'est moi da loolu moo moko wax ah, euh, en tout cas lu mën ci am rek yalla na Sénégal am jàmm euh, euh, man en tout cas je ne suis pas d'accord que mo xam Ousmane Sonko mo wala keneen wala senegalais bu ndaw sax wala bébé parce que tay Ousmane Sonko quoi que l'on puisse dire bu wesso président passé bu mu doon moom mooy tey suñu premier ministre donc mhm. ay nit taxaw ci réseaux sociaux yi di koy di di di yëkkatee kàddu yi ñëw di koy tek suñu doodam là mënuñu ci d'accord fait euh, d'accord parce que mm-hmm. bu weesoo fii nii Sénégal bi nga xamante ne foofu lañ dëkk ñoom ñoo ñu représenté ci yeneen ci yeneen réew yi lu ñu leen xoolee foofu lu ñu leen xoolee fii ci Sénégal bu ñu leen tuttalee ñuy yëgati yeneen kaddu yi ñaaw di koy teg seen dot ñoom bu ñu gënee réew mi noonu lañ leen xoolee te loolu nekkul loo xamante dafay indi cër ci réew Sénégal mm-hmm. Sénégal fépp ñu dem ñu ñi dañuy naw di lañ koy xoolee ak yeneen yeneen ba donc lii waruñ ko bàyyi mu daal di prospérer baa par rapport à la régulation des réseaux sociaux parce que foofu le président avec son gouvernement nañ parce à président de la République Macky Sall mesures mais aboutirul euh, fenn en fait non prendre des mesures mhm dans le but vraiment de réglementer bu kenn saaga kenn. Mm-hmm. ak prendre des mesures pour faire peur il y a une différence. Mm-hmm. parce que Macky Sall mesure bu mu prendre c'est pour se protéger moom bopam la bëgg boppam la yëkk parce qu'il n'a jamais dit ah ce sama nit la mu ngi saga opposition bi na arrêter xam nga def te xamoon ñuy au contraire képp saga recevoir non seulement recevoir na la promotion. kon Macky euh, euh, réseaux sociaux yi lu ko ci ki yone lu ko ci c'est que amu fa poids bi amu fa représentativité bi télé après ci lañuy duggé ci yi. télé yi dema dema dem invité ñi ñu invité di invité ñi ñuy saga yalla mi nga ni du buntu fenêtre indi ñu réseaux sociaux yi ñu indi mafia ku am sa page. lu mu Macky Sall wax tey suba ñu génne ko comme que ñun suñu saagaa ñun heureusement Macky Sall yar nañu jàngal nañu muñ xam nga lu ñu jàngalee muñ dañuy saaga ñun ñu muñ ba tontu la te duñ la saaga loolu sant nañ ko ci Macky Sall yar na opposition bi yëpp. am na solo alors ñu géem ci amnistie fiscale yi nga xamante ne jamono yi mooy euh, kaawu journaliste euh, yëpp ba ñu gis sax suñu naataango a Ndour fay génn ne est-ce que duñu woo <laughs> président de la république ngir mu daal di ci euh, teg loxoom en fait. ben déjà moi le mot qui me dérange c'est amnistie lan moy amnistie parce que amnistie lu ñu àbbee la ci droit mhm. amnistie lan moy tax ñukoy def dañu ne suñu amnistie day am crime yo xamanteni amna lo xamanteni metti na lool mhm. ba société bi bëggatuñ sax fàttaliku ko parce que rien que fàttaliku ko bi day indiwaat ay guerre ay xeex ñu ne nañ def amnistie amnistie fiscale la bii léegi ñu nañ def amnistie xam nga fofu la mhm. légui ñu jël mot bobu indi ko ci fiscalité ñu ne kon dañuy def langage métaphorique mais langage métaphorique soo quoi def mooy la métaphore mooy comparaison sans outil. sans outil oui te donc kuy wax comparaison am nous? ñaar ñu xaw a niroo ñu dëddalewu Les filles, est-ce que ñun fiscalité bi journaliste yor nit ñi dañoo téré nelaw metti ñu ba suñ ko waxé rek journal euh, les sénégalais am xol bu len xol bu tang est-ce que vous voyez. donc la métaphore soxlawut nek muy ben ñaareel bi. Euh, loi des finances Moi, moi, wax pas d'impôt sans taxe pas d'exonération sans taxe pour nga wax nit ki impôt impôt, faut que texte prévoir ko. Mhm. pour nga un impôt. faut que texte prévoir ko et pour texte prévoir ko il faut nous passer par ce que l'on appelle la loi rectificative. Mhm. la loi rectificative moi, lan bien ben instant urgence nous, xoolaat rectifier la loi pour contrôler les dépenses ou bien les dettes publiques te loolu fan lay jaar assemblée nationale. mais est-ce que du responsabilité bi engagement bi euh, président bi fi nekkoon la concerné parce que moo ko diggee woon te dem na te pro loi bi nga xamante ne mën na amnistie. waaye yow ko campagne 2011 ne man sama sama gouvernance Sénégal soxlawut ay tali soxlawut lenn lan la soxla mooy justice bu am doole bu yem lan la soxla mooy dëkk boo xam ne ku nekk da ngay mun a dund yow 2011 nga ñu promettre loolu 2012 nga ñëw 2013 nga commencé tëj nit créé kooku lu mu la wax soo ko gëmee yaay dof. 2011 la donc da nga jàpp ne kon presse bi waru basé wu ci waxu euh, ki fi jógee président parce que gis nga tamit do nek délinquant fiscal. parce que lan moy délinquant fiscal qu'est-ce que c'est que la fiscalité d'ailleurs lan moy impôt dañ la né c'est une participation volontaire et obligatoire non remboursable mais cette participation volontaire et obligatoire là. bi nga xamante ne nii dafa tegu sama kaw tegu sa kaw pour lan la dañ koy jël yóbbu ko trésor mooy tax ñu mën a tabax hôpital mooy tax ñu mën a tabax tali mooy tax courant bi ñu xool nan lañ fay fayee hmm. léegi yow ñu jël xaalis yi sénégalais yëpp 90 pour cent des sénégalais wala 95 pour cent des sénégalais parce que presse bi su bëree ba bëri 5 pour cent la dafa la ci tali dafa la ci policier bu la sécuriser dafa la ci militaire bu aar say frontières dafa la ci lépp

est-ce que vous révolté wu ne même aussi mën na pas non xam nga impôt sur fay moo c'est une participation obligatoire. Mhm. c'est pas que loo xam ne su la neexee nga fay. su la mhm. naqaree nga bañ fay. voilà T'as dit suñu la fayul impôt sur fayul mun na ñëw ba sa entreprise. Mhm. donc ce que veut dire que jaaykatu tout bi par force lay fay. mais suy fay par force en tant que nit quoi n'est ne dafa am euh, civisme contentement bu ñu ci war a am xam ne maa ngi mécontentement on ne peut pas faire plaisir hein? créant l'injustice pour faire plaisir aux journalistes nous créer injustice le président Ousmane Sonko qui nekkee ci opposition bi lu dit wax dafa pour journalistes ils suñu waxee ñu quatrième pouvoir di di koñ euh, état bi que le président yu ndaw yi yu ñàkk fayda yi nangu il l'avait dit mu ne man loolu duma ko Parce que nangu parce que lan la soo ma baalu sama impôt loo vais ma saboter. ko loo ma sabote mais est-ce que c'est ça le rôle du média est-ce que loolu le rôle du média mm. ñu le sabotage bu jéggi dayoo par exemple dans les dans les euh, dans les médias da ngay gis ko xamante ni dañ koy invité soo jëlee Fouta Tampi mom la yab nga nan ki di wax bay wax ko xamné déna dee na papaay suñ ko dee na journaliste bu am des règles d'éthique et déontologie lan nga wara def waroo sax bàyyi passage boobu jàll mais ñooñu ngay dem seeti Abdou Nguer lan la tekki waaw premier juin góor jigéen la Ousmane Sonko ni nga japp ko teg ko ci réseaux sociaux ñom ngay invité nga jël tey jii Aïssatou Diop Fall journaliste parce que tamit benn affaire la il faut que les journalistes aient l'humilité d'accepter que nous critiquer leen mhm. yow mënoo nekk journaliste nga ne magistrat yi baaxuñu jàngalekat yi dañuy daw jàng police, yi dañ leen def nii mais man nag bu ma kenn crom bu ma kenn critiquer loolu yàlla may ko kenn mhm. corps bu nekk am nañu baax am bon mais journaliste yii da ngay dem ba nga xamante ni yow sa télé ku fa ñëw di défendre nit sax sa xol bi di jóg ngay wax bay lox naan ay man euh, euh, góor laa waroon a <laughs> non Aïssatou Diop Fall góor laa waroon a doon damaa mujjee nekk jigéen xaw ma nu ko waxé man duma ma ak jigen dama koy door mais on est au 21e siècle nit ñi xam-xam lañuy ñuy nit ñi éloquence lañuy ñuy nit ñi élégance lañuy ñuy mais mom nee nak nag rafet na lool. dans tous les cas je suis contre que ñu def amnistie fiscale bi déjà le mot amnistie ma dérange nañu fay. maintenant amna télé yo xamante deugantane dundu nañ lu metti luñ mëna prouver par exemple wal Walfadjri ku nek xam na né tëjoon nañ ko tëjaat ko ba pare mu subir lakk xam nga kooku am na des preuves parce que l' aussi dafa am benn clémence. <laughs> mun nga def expliquer avec des papiers justificatifs. ñu wàññil la wala ñu étalonné ko nga koy fay ndànk-ndànk. am na ñoo xamante ni peut-être Covid 19 bi jaar na fi créé woon na benn vide financière boo xam ne jusqu'à présent mënuñ ci génnaat. Mm-hmm. nga bind ñu wax la mais ça sera cas par cas mais xëy xëy rek naa leen baal naa na kon de enseignants yi ñu fay waaw en tout cas euh, lim mu doon wax par rapport ak euh, euh, fiscalité bu. presse fiscal amnistie fiscale bi. waaw amnistie fiscale bi ñu ci boole amnistie en fait. nee na moom d'accord xam nga xam nga lim mu doon wax sànq léegi nii am na solo parce que tey tey presse bi yëpp bu ñu taxoon ñu ne nañu leen baal seen lu ñu war a fay ci ci impôt beneen corps yi tamit wala beneen corporation mën nañ def la la la même chose en ce moment là suñ trésor kon dara du fa des donc comme ni mu doon expliqué sànq léegi même bu fekkee ne dañu leen wàññi parce que tout simplement ils ont subi des préjudices wala subi nañ ay dommages yoo xamante ne mu ñu leen permettre ñu fay fay daar daar ñu jéem a xool nan lañ koy régler ñu fay ko par tranche ba ñu mën a épuiser loolu yëpp mais bal leen lépp lépp lépp parce que boo xoolee quarante milliards. Mm-hmm. quarante milliards mën a tabax hôpital la ñaata hôpital lañ ci mën a tabax wala ñaata ñaata école donc loolu yëpp te ñun en plus ñun suñu réew mi nii ñu ñëppandool <laughs> boo baalee boo baalee quarante milliards ñi nga xamante ne ay ay entreprise de presse lañ euh, enseignants yi taxaw wala ñuy liggéey ci ci ci santé bi taxaw ñeneen ak ñeneen ñeneen taxaw donc problème lay indi mhm. finalement doo xam sax ñan ngay baal ak ñan nga war a euh, ñu fay seen impôt je pense que euh, loolu c'est un peu technique mais nañu xool ak loolu waa gouvernement nan la ñuy def pour loolu ñu dimbale ci presse bi ba mën a épuiser seen kii parce que am na ñeneen ñoo xamante ne amoon nañu yaakaar trop ba xam naa ne bu ñu leen waxee tey tey tey fay leen dinañ ci amati ah mm, waaw def leen ndànk. daal nee na faaw ji <laughs> fay. fay rek leen ko kiiwal quoi na leen ko. modéré ñu fay fay jubal jubanti. loo lekk te moomoo ko gokki ko. waaw nañ jubanti mais. li président loolu la wax. yow daa mel ni kii woo seraloo de. alors ñu jàll ci beneen ponk jëm ci affectation ki nga xamante ne mooy la général Souleymane Kandé mu suscité ay débat yu baree bari ba nga xamante ne man mënuma ni mosul am mais euh, rare na ñuy gis benn euh, général bu ñu affecté mu suscité débat yii yëpp ba sax peut ñu interpellé ci suñu ay euh, naataango koo xam ne tey war na wuy si mooy directeur publication le le quotidien